waaw bis boobu léegi ngeen di li nga xam ne mooy mbënd bi ndox mi sonal leen parce que léegi mu def at ti boobu ak léegi yan jël ak wala li nga xamante ne mooy si côté seen côté maire ak li nga xam ne si côté ministre bi tamit yan jéego lañ ci jël ah man de daaw ba mu fi amee woon ñu nekk fi ñëw nañ indi seen i raakool teg ne dañuy ŋàcc ndox bi waaye hivernage boo nekk loo xamante la ndox bu yàlla di wàcce la kenn mënu koo téye te ndox moo ëpp doole ay machine ak ay kër ndax xam nga ni tey li neexul nga tabax sa kër ba mu mel nii hivernage tax ngay génn keneen koo dem tamit danga koy teg coono ak fi réew mi toll nii sonn nañ jaaxle nañ ministre bi chaque jour ñi ngi ñëw dañuy xool constaté man su doon man la parce que mënuñu ñëw ku nekk di joxe point de vue pour man dafa nekkoon loo xam ne dañ ko waroon régler avant nga xam ne bu ñu ñëwee dañ naan ah lii lañ def mais mënuñu bàyyi ba lépp na këtt ni jonn ku nekk ñëw di wax sa opinion personnelle pour man loolu amatul sens lii nekkul loo xamante dañ bàyyi ba nawet ñëw ñu koy def dafa jiitu nawet te en plus de ça man je me dis ni ñoom dañoo bëgg lii parce que waaw dama naan dañoo bëgg muy nawet nit ñi di génn ñu ñëw di taxaw ñu leen di jël ñuy xoggam naan waaw ah ñi ngi def ay lii indi nañ ay match amul sens nañ wax ndox mi jóge fii loolu mooy wax ji mënuñu ñëw fii HLM moo ñu ko jaay ku ne HLM def wax Parcelles Assainies te yaakaar naa ne dëkkuwaay boo dem jënd fa sa TF war naa am assainissement depuis boobu ba tey ñu ngi muñ. mais seen diggante ak boobu ak léegi ñoom ban ñoo leen ko jaay mais dangay dem di dox ñaxtu après ça n'aboutit à rien du tout parce que HLM mën nañu mooy gouvernement bi. ku fi yor titre foncier bu leen neexul duñ la ko jox kon je me dis que ñi ñu war a lancer appel mooy gouvernement parce que lii borom doole moo ci mën dara ñun ñu dëkk fii amuñu doole bi. amuñu doole dox fii ñëw bi xool bi. dafa fi cinquante milliards ci financement assainissement bi. man de su doon may ñooma parce que loo xool yow deux ans yaa ngi koy defar mënul fexe ba baax j'aurais préféré bu ñu jël xaalis naan ay assainissement lii bu ñu xoolee équivalent bi tolloog nañ ni mën na indemniser ñi fi dëkk fay leen seen xaalis ñu def fi bassin une bonne fois pour toutes ndox yëpp di fi wàcc ñu fi dëkk ñu jox leen xaalis ñu dem uti feneen toog xaar yàlla man boog loolu laa gis. mais mënuñu chaque année di indi ay machine parce que déjà loolu rek mënoon chaque année yaa ngi génne xaalis di def financement boo xam ne ça n'aboutit à rien du tout yaakaar naa ne kuy génne di def financement bëgg nga résultat. su ko benn résultat yéen. non ban résultat loo xam ñun noor sax dañuy branché ay raccord noor rek ñuy branché ay raccord waxantuma la nawet bi ñun bu xiinee rek suñu fit dem nañ suñu xiin suñu fit bi di dem mënuñu si dëkk. mënuñu dem ba tay jii ku toogoon xalaat ni sa ci wala sa papa ngi ci wala say jarbaat wala sa doon. te ñoom ñëpp nañ ñu jàppee comme parce que ñoom ñoo ñu jiite instant ñoo fi suñu papa ñoo fi suñu yaay ñoo fi suñu lépp ñoo fi suñu lépp kon nag ñoom ñoo ñu war a mën a dimbale mais taxaw di wax loolu pour man amul sens. ñëw nañ waa monsieur le président d'accord nañ yaa ngi liggéey. yaa ngi yebal ay nit ñu ñëw di dem mais man j'aurais préféré ñu toog def seen réunion trouver consensus ne lii kat buñ ko defee mu dañ. mais mënuñu bàyyi ba mu ne këtu njong ku nekk ñëw di wax wax wax ñuy déglu wante le temps ne s'attend pas temps bi taxawul di xaar kenn nawet bi xaarul kenn. mel commencé gul sax. lii dafa commencé gum ut de lañ nekk. ut lañ nekk mu mel nii ñun xam naa ne septembre moom plafond yi day wat ah. balaa mu ñu fee fekk nag ñu dem ah bien sûr ah dëgg laay wax ñun dañoo sonn de woon na yàlla dañoo sonn sonn nañ ba fi sonn yàq imagine lii bu école yaa ngi nii. école yi ni mbedd di mel noonu la mel du table banc bu fa xale yi mën a jàngee te nee nañ dañu bëgg ku yor réew mi ëllëg mais ñi ko war a yor mooy xale yi dès le bas âge ñu màggaay la ko ak ñoom yaa may dégg mais ku dund lii sa sax du nekk si jàng parce que jàng ak toog di xalaat ah àndul ak lii preuve yàlla wan na leen boppam Tamba la xawma fan jour examen élèves yi dañuy xuus di dem lu mënoon a ñàkk la lu mënoon a ñàkk la man j'aurais préféré président nay wàcc sur le terrain di xool li fi xew mën nga yebal nit mu dem wàcc na sur le terrain wàcc na sur le terrain mais ñun dañoo bëggoon indi nañ ko matériel yëpp pour mu dugg mais duggul pour xam li xew ci biir ci kaw tali bi la yam dara bu la taxee jóg pour man bien vrai que ni geste bi rafet na ne au moins bàyyi nañu xel xam ni mu ngi partagé suñu naqar mais bu wàccoon dugg ci biir gis di fi xew mu xam ni lii ñii li ñuy dund metti na moom instant yi fan la yaakaar dugal ñu déjà Covid bi mu ngi si dëkk bi lii moo raw Covid jamono jii. pour xëy di wax sax ay nombre de cas nombre de décès nombre nondation moo ko gën a am importance si dëkk bi wóor na yàlla. côté Siburu bi. ah ñun ñun Siburu si lañ dëkk. dañ koo dëkkee ak moom amul noor. amul nawet. bu ñu nee woon dañuy wut vaccin pour coronavirus war nañoo wut tamit vaccin contre le paludisme parce que ñun noor ak nawet ñi ngeen ndox bi si yooyu lañ dëkk donc nañ waxante dëgg ñun ci siburu lañ dëkk yàlla moo ñu yor moom lañ sàmm moom lañ bàyyee suñu bopp instant suñu lépp ci loxo yàlla lañ ko teg comme que nag yàlla moom la jël def ko njiit mu war a doomoo askan bi yëpp. sëtoo askan bi yëpp ñun moom rek lañ mën a wax pour mu dimbali ñu parce que sonn nañ sonn nañ ba fi sonn yam munoo am li nga dajale yëpp ba yaa jënd sa kër yaakaar ne di ñu si mën a nekk mu munoo ci dëkk. location dafa metti bëgg si boole dund bëgg si boole ay hivernage fi na boo génnee ak 14 euh, heures jot na nit ñi taluñu lekk taluñu naan. ah xam nga ni tey jii ku dem kër jàmbur di nga yóbbaale sa poos. ndax même buñ la nangoo yóbbaale bu ñu la ko waxee bu ñu la ko waxul yëpp dafa metti yor benn nit rek dafa metti waxantuma laa nga yor famille da ngay mujjee obligé di li nga yor akus néew di ko partagé te déjà boo ñëwaatee sa kër defar mu ngi la fay xaaraat peut-être yow ña nga fekk dañ naan ah ndeysaan ndox ma da jeex na dellu nañ daaw jox nañ ñu ku nekk 200000. am na ñu amul mais ñun li ñu fay li ñu fay voilà te am na ñu amul ñun déjà li ñu faywaat suñu kër. mën naa ne ëpp na si 700000 francs parce que meuble yëpp lañ changé waat ren mi ngi nii bu noon ngaa dugg ci biir xool lépp lañ aj lépp mu kaw koy dénk suñu xar yi ngeen dégg muy mbee si suuf suñu dëkkandoo lañ woo léegi nekkoon ko ku ñuy teel xar yi mu ne ñu koo téye instant yi bu demee ba mala yi sonn nit ñi lan lañ war a wax. nit ñi war a yor mala yi sonn nañ ñun lan lañ war a def on est sonn nañ damm nañ taayi nañ xam nga ku bokk ci ñoom baa mu sos ci ñoom du dëkk ci lii te bu mu ko yëgoon dañ naan bëreet da koy xool tey ci coronavirus bi baa doole yi rek ñooy dee ndax oxygène mais ñi ci am taxawu dëgg kenn du ci dee ndax ñu ngi xool nooy amee oxygène mais lii oxygène moo ko raw raw lépp déjà yow boo amul fu confortable nga dëkk fi li ngay nooyi lan la air pur xamuñu ko déjà Kër Massar amul géej moo tax ma ne la sànq yàlla moo ñuy sàmm moo ñuy sàmm ñun président nee na li mu mën mi ngi koy def te gis nañ ni mi ngi def ay jéego waaye bu ñëwoon fii xool nit ñi pour man loolu moo ma gënal te man moom su ma ko doon jox solution rek sama xalaatu bopp consensus nekkul dañu bàyyi ba lépp taxaw ñu koy jéem a trouver non non parce que bu kii di wax fii nga ne non man lii laa xalaat kii ne lii laa xalaat ça n'aboutit à rien du tout. donc na jël Parcelles Assainies unité ak fépp fuy taamu leneen fii mënatuma ci dara mu dédommager leen li xool li équivalent ak seen kër yi. mu delloo leen ko ñu dem xool fu ñu dëkk moom mu noppalu nit ñu noppalu voilà